man Diop madame Diop madame Diop ñun wa Sénégal pêche sommes taxaw port Moldis, Sénégal pêche ku nekk moldis ku déggul la fa xew war nga lepp ñepp ko dégg ça fait trois ans liggéeyuñu suñu gaal yi amuñu licence dañuy licence. pointé wu tok ba 18h, heures ba quinze heures wala ba midi ñu ñibbi trois ans depuis Covid bi ba loolu la ñuy revendiquer bu fekkee si état bi la nañu jox suñuy licence ñu liggéey gaal yi dem ñu mën a liggéey boobu ba léegi liggéeyuñu nit ñaa ngay toog te ay borom kër a fa nekk yu responsable ñoo taxaw nii suñu ginnaaw waaw. plus de quatre cent et quelques personnes moo ngi kër ga te journaliers yi bokkuñu ci embauchement yi rek pili de quatre cent et quelques personnes ñëw na ñoo ngi fa te te journaliers yi ñëwagul. suñu délégué yi ñu ngi def ay jéego. ñu ngi bind lettre ministre bi ñu ngi bind lettre fep fo xamanteni yaakar nañ mën nañ ñoo jappalé pour ñu jot suñu licence pour suñu liggéey démarré waat xamuñu nak affaire bi fu mu taggé mais fu mu taggé mom bëgg nañ mu décanté wu ñu mëna a liggéey ndax ay borom kër lañ ay responsable lañ da liñu war dafa bari suñu ginaaw dafa diis ñongi wo ñepp président de la république ñepp ku ci man dara nga wax ci su liggéey bi déparé nak ba normal ñu gëssu salaire yi ndax foofa moom yalwaa na fa né salaire néwu fa waaw salaire yi ndaw na torop bu boo demee banque ba ñu jël li ngay jël ba pare boo moytul di nga mëkk bunti banque yi bala ngaa génn ndax dërëm dootul des ci salaire loolu nag la ñuy revendiquer na licence yi ñëw gaal yi dem ñu fay ñu ay salaire yoo xamante ne nii c'est digne de nous parce que def nañ fa trois ans de service kon mérité nañ loolu waaw.